parce que mbër mu daan wax ñaari mii laa lay may wala mu ne une minute trente arbitre souffle muy sikki sàkka kon lam daan yëg yëgatu ko Balla Gaye pire ba non non Balla Gaye daal lu ma la mën a xamal mooy bu doon ataaya naan na lëwal naan na deuxième mu ngi ci troisième bi troisième bi daal mu ngi commencé xor waaw loolu laa gis Balla Gaye mi nga gis est-ce que mën na daan daan Boy Niang wala na daan Gris Bordeaux wala mën na daan Eumeu Sène mi maanaam li ma la mën a xamal daal mooy Gris Bordeaux Boy Niang Eumeu Sène xanaa ku ñàkk fayda ku gëmul sa bopp Balla Gaye mën na la daan Balla Gaye kum ci daan ci ñett ñooñu rek yaa gëmul sa bopp parce que ñee dañu ko gën a pare tam nga oto buy dem Touba ñu lay réparé di lay réparé waat oto bu oto bu wow kong bu bees pull buñ tegee ci autoroute péage bi parce oto bi ñu réparé bu njëkkee àgg Touba rek chauffeur ba la waaye du oto ba ak ah, kay la demee nag instant bi ñoom booy ñaa ñoo gën a pare ñoo ëmb seen ñoo gën a pare léegi lii lislaam boobu mooy fulla ak fayda waaye fulla ak fayda buñ ko amul bala bala nga dalay waay di lo parce que waga la bala ngay dalay napp ci boo ruuxee mu waaxul ñibbi waaye boo dëgalee sa bopp ñeme boo koy bu la dóoree boo dóoree mu pare